asalaamaaleykum mbokki téléspectateur yu suñu TV ñoo ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk fi nga toog duñu seetaan tey nag ñoo ngi fii ci Parcelles Assainies unité 25 di tourner émission bi nga xamante ni moo di à qui la faute nag lu ñu am comme tey mooy li ñuy waxtaanee mooy virginité virginité bu ñu ko waxee mooy ndaw ci wolof xale jigéen yi amatuñu ndaw ñuy laajte kan mooy fautif xale jigéen yi la wala parents yi la wala bon xale yu góor yi la aussi parce que dañu seetlu lu bari xale jigéen yi léegi farataalatuñu li nga xamante ni mooy ndaw góor ñi farataalatuñ ko ku ci am sa gel li ngay njëkk a xalaat ci moom mooy jaar ak moom ci yenn affaires yi. xale jigéen yi ñooy nangu yooyu wala góor ñi ñoo koy nangu wala parents yi ñoo bàyyi seen doomi ci yooyu loolu lañ fas yéene waxtaanee fii ci Parcelles Assainies unité 25 euh, duñu ci wéet benn yoon dañ ci ànd ak ñi nga xamante ni ñooy ay jeunes nekk ci koñ bi ñoom lañ ci ànd dama leen di bàyyi rek ñu nuyoo ma daal di leen poser samay question sëñ bi nuyu naa la. maa lay fay. tur bi naka la. Ibrahima. Ibrahima dégg nga suñu question yéen yéen a choisir seen thème. ñu waxtaan ci li nga xamante ni mooy di virginité lan moo waral léegi euh, gis virginité rare ci nga xamante ni mooy askan bi waaw ah, man moom pour man bës daal laa ko jàppee quoi fële xale yi jigéen ñoom ñoo raw sax ginaar yi dañuy jur di teg xale yu ndaw ginaar yi sax juróo di juróotuñ di teg ñoom dañuy jur di teg parce que dama ko jàppee bës da ngay gis ko xamee amu sax 15 ans wala su ko amee si la yem mais ñoom taf-taf rek da gis ñoo am ñuy ëmb di am ay doom loolu man dama jàpp ni du góor yi sax kon ñoom ñoom ñooy dem di fekk ji ñoo leen di fekk ji ñoo leen di imposer góor yi ñàkk fayda tamit ñoom ñoo leen di euh, teg loolu rek ba loolu laa jàpp. est-ce que tamit xale yu góor yi bu la jigéen fekk see tamit war nga ko topp ci li mu bëgg. mais su dee jigéen ki dafa ñëw ak nu muy ñëwee parfois ñoom ñooy bëgg daa am ni ñuy ñëwee pour charmer la tamit loolu da see am ñuy ñëw jëm la charmer affaire demee noonu su dee yow nag am nga xel yow mën nga fexe ba rëcc ba loolu noonu doo si fekk mais kon sama genre yi wala kii toog ñoom di naan namu sa yamu sa yaa ma gën a xam. la ca ba nga jël kon damay bàyyi jigéen ñi ñu ñu défendre seen bopp <laughs> soxna si maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. loo xam ci li Ibrahima wax. li mu wax moom d'accord ma si parce que tey jii nii ak jigéen lu mu mënta mel olof Ndiaye dafa ne jigéen xelam dafa gàtt. kon tey jii góor ak lu mu mënta mel mel mel jigéen ak lu mu mënta ñëw ñëw war nga am benn contrôle boo xamante ne tey jii nii bu ñëwee war nga ko mën sax changer. parce que tey jii nii am na góor yoo xamante ne ñi nga xamante ne la plupart dañuy def dañu am ay doom hors mariage lu mu bon bon bon am nañ maximum 18 ans donc kooku war na am xelu maturité boo xamante ne tey jii jigéen ak lu mu mënta ñëw ci moom ak lu mu soxla si moom war na ko mën ne ah lii ak lii baaxul. jigéen ñi tamit am na ñoo xam xamante ne tam téyewuñu seen bopp am na góor itam am nañ par responsabilité comme parents itam am nañ par responsabilité que dañuy bàyyi seen doom ñuy génn di dem fu leen neex jàpp ne ak ah, xale bi dafa war a génn affaire xam sax ci xale bi di dem donc loolu tamit loolu yëpp ci la donc duñ ne loolu buzz la parce que loolu jur ay doom tout le temps tout le temps tout le temps loolu tuddee ñu ko buzz dañuy feesal dëkk bi rek. dama lay laaj léegi yéen seen far yu léegi yéen lu tax ngeen dem leen di fekk di leen seet mais yéen tam bañoo leen ko. mais moo ngi noonu. jigéen da ngay toog da ngay toog li ñu naan sa pooju ndey da toog sa pooju ndey takk si am ñu fekkee la foofu. doxaan si ñun doxaan ñu leen yéenay ñëw doxaan si. mais soo leen nangu après yéenay ñëw. mais yéen a ñu nangu moo tax. li ñu ñu ne maam bu la mbëkkee nga mbëkk ko ya ñaara yem looloo fi am. est que du xale jigéen yi tamit dañuy bëgg loo xam ne mënuñu ko am tamit. waaw jigéen yi tam mel nañ noonu mais ñëpp meluñu noonu am si jigéen yoo xam ne tey bu ñu bonee góor yee tax. nuñ ci bu max ñoom ñoo tax. bëriwul. non su bëree ba bëri sept lay nekk wala cinq yéenay bëgg dara si góor bëgg iPhone wala dara moo tax ngeen dem loolu mu ngeen di ko jaral. waaw ma laaj sama yaay jaara moom lan la xalaat ci loolu soxna si maa ngi lay nuyu. Mbaye Ndeye Faye. tur bi naka la. jaara. maam jaara loo xalaat ci liggéey wax. loo xam nga caam nu mu wax moom du kii parce que jigéen bu la fekkee moom yow da nga war a kii euh, jokkal lu mu war a fekk rek nga jox ko boobu waaye daal en tout cas daal jigéen rek ñu am suñu bopp rek parce que góor léegi bu la ëmbee rek. da ngay yas sa kii bi rek. góor yi léegi bu ñu la ëmbalee yow yaay perte sëñ bi nuyu naa fay naa la. tur bi naka la. Lamine Kebe. lamin Kebe dégg nga li sama gars yi wax loo ci xalaat yow. bon dégg naa ko en fait man lu ma ci xalaat mooy que ni léegi xale yi dañoo dañoo teel a bëgg bëgg a découvrir sexe comme genre tey jii nii boo seetloo temps bu njëkk ba ba ordinateur amul télé amul dara amul xale yu jigéen dañu doon am seen ndaw. toog seen pegg nday mais léegi avec avec avec développe avec avec waa développement nouveau nouveau technologie bi mooy ko da gis ay xale yu ndaw tey jii ñu dem cyber di di xool naka sudul noonu xam nga tey jii nii loolu noonu tamit baaxul loolu loolu da lay fu ne tey jii nga di nga nga xam loo xamante ne waroo waroo ko xam de un de deux mooy ko ni léegi léegi xale jigéen ñi tamit. dañuy dañuy gis léegi xale jigéen yoo xamante ne ñoom toogatuñu seen seen seen poojo nday quoi li ñoom dañuy dem di fekk ji xale yu góor yi loolu noonu yëpp tamit responsabilité bi si ñoom la en plus si parents yi la si ñoom la un mooy que ni carrément ni parce que dañoo ne nit ki loo bëgg def rek daf fekk ni daf la neex mais loo bëggut a daf fekk ni neexu la beneen bi tamit si parents yi mooy que léegi da gis da nga yoo xam ne seen doom day am 12 an 11 an ñu di ko bàyyi muy muy sol di n'importe quoi te loolu noonu yëpp ay provocation yoo xamante ne la tey jii nii mooy loolu parce que léegi parce que léegi da ngay ay pas yoo xamante ne sax da ngeen doxaan ay xale yu am ay 15 ans ay 16 ans ay 14 ans mais loolu noonu yëpp rek responsabilité yi parents yi la parce que parce que tey jii nii sa doom tey jiini bu demee jënd ji dara ñëw da nga ko war a xool mais xooloo ko mais tey jii nii mu jënd lu bon sol ko génn si mbedd bi romb tey jii nii benn romb tey jii nii benn waaye naka benn waay joo xamante ne lu bon moo ko tax a jóg daal. loolu noonu tamit rafetul quoi man loolaa si xalaat daal. est-ce que tamit góor ñi mënuñu jàpp jigéen ñi comme nga am nga sœur am nga frère am nga sœur bu jigéen am nga yaay jigéen a la jur est-ce que tamit bu la sa euh, nuñ koy waxee sa coro seet wala sa gel seet si la mënoo jàpp ne kii jigéen la amul xel mën naa ko mottali ci yenn yi. waaw nuyu naa leen dañal la euh, dama jàpp ni moom fi mu waxee nii. parce que fii da ngay gis léegi du man du ma ne kii mais àndandoo laa koy laa tuddee quoi da ngay gis ay xale yoo xamante ne bëri na fi quoi ñun banlieue lañ dëkk muy parcelle Pikine Guédiawaye da ngay gis xale yoo xam ne ay xale yu ndaw 15 16 ans ëmb loolu lu koy waral man si man mooy ñàkk conseil quoi parce que xale bu muy baax dañuy toog seen pooju ndey yi di toggal seen yaay day yekkal dem jàngi école ñëwaat mais léegi xale yi fu nekk nga leen di gis xoolal instant bi jëm heure bu heure bu heure bu jot da gis da ngay foo toogee fii chaque instant ñoo lay romb mais loolu dama jàpp ni ñàkk téye sa boobu ak ñàkk xam sa valeur la ak sa xarit yi di la bu max naan la yow la yow la yaay boj sa monde boo amee benn ñaar dootuñ la xoolati dootuñ àndatee ak yow man fa laa ko jàppee quoi. kon daal bu ma déggee xale yu góor yi bu ñu la fooyee ba nga am doom dañ la fiy bàyyi dem seeti keneen. dañ bàyyi seet seeti keneen parce que dañ koy man de man duma joxe xaalis si si nen de man duma joxe xaalis si nen man dañal laa tudd gëmmoo si dara. micro yow li ngay wax gëmmoo si dara xamee naal bu baax yow da ngay iri yow xamee naal yow sax yu ma gisa si koñ bi ak ay sóof déet yow sax yu ma gisa yow n'est-ce pas rappeur nga yéen affaire de vi euh, dund artiste yooyu noonu. yéen loolu ngeen di xëccee xale yi jigéen ñi. mais mais moom weddiwul moom nee na moom ah. xaalisam du ko joxe noonu. da ngay joxe ci gratuit. waay moom day dégg tëll rek ne rajax na dama ne boo ma toppatee si lu ma bëgg. man du ma sama xaalis du génnee si nen su ma la joxee dinaa am dara mais yow mii noonu ngay def yow xam naa la bu baax si koñ bi nga dëkk. joxal ma kii micro bi moom ma laaj ko ba xam moom day joxe xaalisam si nen wala sëñ bi maa lay maa lay fay. tur bi naka la. man maa ngi tur Jules. Jules loo xalaat ci li gars yi wax. bon man lenn laa xalaat ci li gars yi wax parce que premièrement euh, man man je rejette la faut au parent si man parent yi bu dee bu dee yar nañ seen doom parce que dafa am trois façons éducation am na. sa sa doom sa doom da nga war a yar déjà nga yar ko si religion ba pare nga nga nga yar ko de telle sot ko moom day doylu parce que boo seet loolu lu euh, sosio la tey jii xale yu jigéen léegi duñ doylu looloo tax ñuy génn si mbedd bi soit benn a Ibrahima Thiam wala benn Dani tiima tiimal leen tiimal leen tiimal leen benn benn benn 5000 francs wala 10 000 francs nga gis mu am mu am si ñoom leen neex ci man ñàkk a doylu boobu lool boobu la quoi te comme li ñuy wax rek ku yarul moom mbedd yar la voilà. Zilio am nga gel non man instant bi nag aw ma gel damay jàng quoi. yow yow da ngaa doylu yow. Hmm? yow da ngaa doylu dama lay laaj. Ah? mais man mais man dama doylu. man dama doylu dans dans quelle sorte parce que man xam naa sama bopp xam naa xam naa xam naa xam naa xam naa man lu may lu may jar ci man si man nit ak ku mu munti doon jikko boobu noonu bu nekkee si moom maanaam muy doylu wax dëgg fa yàlla du dem. di xool yi ay ñu lay ñu lay timal. mais mais loolu tarawu leen di iri ay gel quand même. man damay laajte ba xam ndax ñi fi toog ñi ndax am nañ ràq

contrôler seen i hormones ndax bu ñu ñëwee ci yéen ak suñu melokaan ñu ñëwee yaa ko wax léegi non non non non non yow ci nga bokk déedéet Ah, déedéet d'accord non mais non mais d'accord ma ak yow parce que tamit boobu ñoom bu ñu mënul contrôler seen bopp yow mi jigéen yow li ñuy wax deru jigéen lu ko taasal dafa yomb yow mi jigéen yaa war a xam fan ngay teg sa tànk aussi loolu dëgg la mais sànq dafa wax si ay waxam ne carrément am na jigéen ñëw bi mu ñëwee si yow yow doo mën a contrôler wu tey jii nii su fekkoon dafa nekk koo xam ne fonk na ndeyam wala fonk na sëram yaakaar naa bu gisee jigéen da koy li mu ko def da koy yërëm ba pare bu taxaw ko mais ñii bu leen taxawoo buñ la nee nii neneen la carrément ñëwal suñu kër loolu lañ la njëkk a wax. xam nga tax lu nekk neen daal nii nii nii mën nañ wax mais gëmuñu dara léegi nii nii suñ jaalee su ma ko géré mu ndaw na am lu mu intéressé si man rek na am lu mu intéressé si man na xola na bëgg dara wala mu gis yor naa wala dara su ma ko nee booy balaa ma naan booy moom moo ne laa dama laa ma ne ko yegal lu nopp bon damay damay retourné rek daal di joxaat ko joxaat ko sama micro yow lan a wax lan nga bëgg a wax man lu ma bëgg a wax mooy ko ni carrément ni tey jii nii ñaari ñaari ñaari exemple la ñuy joxe est-ce que jigéen tey jii nii boo xamante ne dafa toog si pegg ndeyam dara dina ko dal mais ak tamit jigéen goo xamante ne mooy fekk ji. parce que si man tamit tey jii nii yow boo toogee fi nga war a toog xam sa bopp tey jii ba nit gis la xool la bëgg la ñëw fekk si la takk la ak ak koo xamante ne tamit day moom mooy dem fekk ji man moom ñaari yoon laa ko laaj moom lan la ko gisee moom. mais en général en général en général ñi génn ñiy génn ci biti di dem di doxi di génn du ñu ëmb de ñi toog seen peggu ndey ñoom ñooy ëmb. waaw mais loolu comme li ñu wax rek l' apparence est souvent trompeuse comme boog app léegi apparence bi moo nax ñu bëri nee naa la nee naa nee naa la ne lépp loo gis diñ kumpa sees diñ kumpa boo xam xam xam luy. sex boobu lan lan lan lay lan nga siy yëg lan nga koy sentir. mais sëñ bi mais sëñ bi nga foog ne loolu noonu du si parent yi parce que parce que tout tout parce que déjà Amina parce que Amina sàng wax na ko lan la wax nee na xale da ngay da ngay da ngay da ngay gis benn xale bu jigéen romb la sol xale boo xam ne 11 ans la am wala 12 ans bu rombee wër boo xoolee da ngay foog ne am na wala 18 ans te lu ma a xam xamal la moo tax xale yi ñu teel a ëmb si man seen bopp yi feesul seen yaay duñ duñ duñ xoolal duñu feesal seen bopp ndax da ngay gis xale bu ndaw ah yaayam bu ko waxee mu bañ fobeeral mu bañ def lu ko neex génn dem dem yoonam non mais dëgg la moo fi am. moo fi am moo fi am. parents yi tamit ñoo teel a dégager seen responsable parce que xale bu tuuti mënoo mënoo ko yor nga ne mënulu ma ko dara léegi parents yi ñu ci ëpp loolu lañuy ñuy def da ngay yor xale bu ndaw ba âge lay commencé bu ñu waxee nga ne mënulu ma ko dara est-ce que loolu tamit du fatu parents yi non mais yi si la xale yi tamit si la parce que man tamit du jur sama da ngay gis parents yu bari fii banlieue bi xam nga nu mu demee da ngay gis parents yoo xam ne ne ay ful doom yu bari lañuy ñuy am duñu mën a surveiller ku nekk te tamit tey jii xale yi man gis naa ne dañoo dëgër bopp dëgër bopp boo xamante ne dañuy neex dañuy metti cadre quoi mais nag euh, comme li gars yi di wax rek sa parent bu ñu la yaree nga bañ mbedd mi doon sa kilifa rek. man sama gis ñu si ñu xam ne dañuy ñàkk vés wala ñu si ëmb ñu bëri xam na mooy ñan. ñu xam ne tout le temps dañ leen di tëj duñ génn duñ def dara ñooñ ñooy génn ñu nax leen mais ñu xam ne tout temps am nañ liberté dañuy génn di dox di def lépp ñooñ dañuy dañuy xam temps dañuy muus mais souvent ñu ñuy tëj rek ñu xam ne duñ génn bëri ñoo ñooy génn rek di def erreur. donc ñi ñuy tëj ñoom ñooy génn di def erreur kon kon kon côté boobu faute bi kon mun nañ ne ci yéen góor ñi la parce que ku génnul xamul dara bu génnee war nga ko wax. mais mais tamit parents yi ñun neex ku jigéen xam na ku góor xam na ko duñ ko forcer kenn ku mu neex moo koy def. lan moo tax d'accord. sëñ bi d'accorduma d'accorduma xam tax moo loxo am na jigéen ñoo xam ne da la ñuy tëj ah ñu tëj leen bañ ñëw ba màgg am jëkkër ba pare am ci am ci njaboot bu tedd seen bi man lu ma lay wax maanaam jigéen moom wax dëgg fa yàlla comme ni nga ko waxee sànq lu yaax deram dafa gaaw jigéen buy dox chaque jour di génn chaque jour gars di ko xamal wax dëgg fa yàlla loolu rafetul si jigéen man loolu rek laa lay wax loolu xoolal loolu même boo ëmbul sax même boo ëmbul wala leneen dal la dina la dina la sikkal leneen loolu laa lay loolu laa am mais jigéen daal mais jigéen loolu la ah mooy sa copain waaw waaw looleen kii xoolal la mooy solution bi mais doon nekk fii di kii. amati nañ temps pour yar seen doom yi parce que da ngay xëy bàyyi sa doom ak sa jànq ci kër gi mu nekk fa doo amatoo amatuñu temps pour yar seen doom. xam nga la sa parents bu la yër bu la wul yow nga war a conseil sa bopp parce que góor yi moom bu la ko fekkee moom da war a du war a def parce que góor yi tamit bu la xale jigéen bu la fekkee day xalaat jigéen moom a jur waaye xale jigéen yi moom dañ. nañ kii seen bopp rek nañ xam suñu bopp parce que jigéen góor yi léegi bu la ombee day yàq sa kii sa sa carrière rek. mais tamit mënuñu jël tout le temps tamit tout le temps dañuy même fekkee ne que suñu parents yi tamit conseil yi nañ conseil suñu bopp parce que tey ji mënoo jur sa doom bu ndaw tey xam nga lan moo am précocité da ngay gis ko am 12 ans nga yaakaar ne am na 18 ans tey ji tey bu fekkee ne que yow sa pap sa yaay dañuy xëy 8 heures balaa nga dugg si kër ga tëdd nga nelaw tey ji ñoom ñu am temps certes yow da nga ne carrément ñun nañ conseillé suñu bopp mais tamit lu mu bon bon bon bon doom ni ñuy wax boolu añ nit war na cee yedd doomam boolu ree nit war na cee yedd doomam même ndékki nañ toog yedd seen doom ce qui veut dire kon bu ñu waxee ne que parents yi dañuy appuyé ci ñàkk temps bi fekk ne que du loolu dañoo xamatul nu ñuy yaree parce que tey jii seeraa nga gis koo xamante ne tey jii nii lu ko maamam yaree mu ñëw ree yaree ko doom dañ naan ah génération bi tey lii moo xew mère yi léegi sax dañuy ñëw ñoo lay gën a dooj sax ka xale yi ko ce qui veut dire que amatuñ temps yar seen doom yi. Amina Amina man lu tax gis nga parent yi ngay wax noonu tey ji parent bu fi xëy rek mu ngi dem wuti lu mu jox ay njabootam alors dañuy continuer rek ba léegi daal dugg suñu deuxième partie ñoo ngi fii ci Parcelles Assainies unité 25 li ñuy waxtaanee mooy virginité ni ñi euh, olof di ko wax ndaw ci ci xale bu jigéen bi nga xamante ni moom la ñu war a tax mu dem sëyi ji ci ñuy continuer rek ba léegi ci suñu thème daal di jox suñu invité bu ñaawut bi di ko nuyu soxna si maa ngi lay nuyu. maa ngi bi naka la. lii ka. ka na li ko li ñuy waxtaanee tey lan moo ci sa xalaat ñii ne nañu xale yi jigéen ñi régleetuñu parce que dañoo bëgg ay cheveux naturel dañoo bëgg ay saag yu bees ay dàll yu bees moo tax téyetuñu seen bopp ba mën a garder seen ndaw ba bis bu ñu amee jëkkër bégal ko ci. waaw loolu dëgg dégg naa bu baax seen thème mais comme ni ngeen ko waxee rek mais man loolu dama ko contre parce que man je préfère la virginité jusqu'au mariage. moom ma gën a la. moo nekk ci man. est-ce que moo nekk ci yow. ma tee ma tee. yow dama lay yow dégg nga su bopp benn. yow du soirée. ah du tànn biir. yow foo dégg rëng-rëng di nga dem. léegi ba fay nga yow teg sa bopp waaw. at yow yow bàyyi woo soirée bu la yow yéen ñaar a yem. mais mais mais mun na dem soirée te teewul mi ngi téye boppam. wuy ma yow ne bësal jees ma ñëw damay dem soirée damay dem boîte de nuit uh-huh. tànn bee buñ ma mënta tuddee damay dem wàcce fa battre lu neex teewul sama lii maa xam moom dama koo téye ba mu neex ñaan ndékki foo ne damaa mos a taxaw ne la may ma yow dama mës a taxaw ne la may ma. wala feneen man du ma la takk man su ma doon takk man wax fa yàlla. <laughs> sa moromu góor yàlla ñoo takk ba mu neex. la sa moromu góor yàlla. Ah, ka lii. Euh, yàlla. yàlla bindul benn ma mun naa nduróo keneen ak keneen a keneen waaw yàlla bi nu benn nit ma mën naa nduróo keneen ak keneen mën na gis keneen foog ko man xam loolu lay am ah déggu ma yow joxal ma kay. lii lii lii ka gisul la soirée jëndal la bi. kii nii est-ce si ay gént sax man ku ma. xoolal la tudd caam soirée bi Tabernacle la bii passé euh, Ibra chaque dimanche day tëgg soirée bi passé entrée 2000 la xam nga ba mu ñëwee la la ma 1000 francs laa yor est-ce mën nga ma mottali ma tegal ko ci 1500 ne ko booy ñibbi jëlal oto nga ñibbi waale. daay foo man man man damay rab damay rab damay rab ñii xam nañ lu may wax man Baye Fall laa ba ñoo ko am na sa benn maanaam bu ngay dem bombaas boobu maa ngi cant ya naan jërëjëfee borom Touba Bamba kenn la comme man man du ma woote lool si rab ñu ma ñëw ñu may gis ay kii nii ay soirée wala yooyu noonu voilà ñu wante dëgg. Ibrahima lañ ma tuddee Ibrahima sama mat sama tur daa sell sama tur daa sell comme man dama. yow ma Ibrahima fii borom turi sell yi rek ñoo fi ñoo fi def naka sudul noonu tamit. yow li ngay def li ngay def buñ ko waxoon de bi day wàcc dañ koy tëj. yow déggoo ma. seetatoo ci bëccëg guddi ngoon saa yoo ko namee. mais eh, eh, eh, man d' accord ma nag seen ngeen wax sama commune Ibrahima dañ ko war nañ ko wax dëgg télé lañ nekk nag Ibrahima moom wax dëgg fa yàlla muy kii muy kii moo leen gën a jub Ibrahima non waa ok amul problème léegi dañuy dañuy dañuy dañuy dem si thème bi dañuy wax si thème bi moo gën ñu nekk fii di ko di ko personnaliser personnaliser débat bi quoi man benn affaire laa wax benn affaire laa am lu may wax virginité moom dafa nekk loo xam ne dafa am sens jigéen parce que soo seetloo góor yu bëri suñu takkee lu tax lu tax dootuñu respecté euh, ku ku jigéen ki parce que déjà luñ gënoon soxla si moom dem na dem na dem na ba pare sànq rek suñu gën a am na am na am na sept affaire am yu mu si jigéen te sept affaires yooyu noonu soo seetloo à la fin virginité la tudd te loolu noonu dafa nekk loo xam ne c'est très très important chez une fille si man moom boo bëggee góor respecté la téye ko te góor moom boo xañee sa bopp ci lay gën a ñëw mais gis nga boo ko joxee sa bopp ci la lay gën a daw bu la amee ba pare rek dem boo xam waxee moromam. jox ma sama micro yéen ku leen di xañ seen ah wuy ma waaw tamit dëgg la dëgg neexul yow wuy ma comme ni nga ko waxee rek dëgg la virginité dafa am importance si nit parce que tey jii sa jëkkër bu la bu la taqee may la un million amaana deux cent mille la la may huit cent mille yëpp dafa am lu mu jënd si yow dëgg la muy lan sa virginité kon bu ñu neexee garder ko mais yéen bàkk Serigne Babacar Sy laa la waatal góor xoolal góor xoolal déglu ma góor bu ci góor bu ci takk ja xaw ma góor bu si am gel xam nga la la lay soo leen di commencé waxtaan xam nga ba la lay njëkk a may action et vérité première question xam nga la laaj est-ce que tu es vierge yàqamti na nga ne ko non ba mu suba ñëwal sama gaale yaa bay dégg nga dugg gaaleem bak sëriñ Babacar Sy mu tegal la musique bu douce di la fóon di la raay nga yaakaar ni yaa ci nekk nam lay tëddee rek bu ko xeeb pour ñii waaw lépp xam kon rek ba léegi dama damay jox Mouhamed mu wax ma lan la xalaat ne mooy euh, moom la ñu war a def comme solution pour que xale jigéen ñi téye seen bopp waaye xale góor yi tamit jàppale xale jigéen ñi yërëm leen pour que ñu mën a téye seen bopp Mouhamed dangay may jox sa solution nga daal di tàggatoo waale. waaw damay profité di santaale sama waa koñ di leen gërëm ñoom ñëpp. mais tamit xale jigéen yi. liggéey ngir yàlla doo may jàmm. liggéey bàyyi jàmm jox ma sa solution. <laughs> xale jigéen ci boppam dañoo war a téye seen bopp ndax lan instant bii nii am benn parent mun naa wax ne benn parent amatul jotu toppatoo ay doomam ndax bu ñu xëyee ñu ngi dang-dangi pour luy xale yi lekk affaire yooyu wala luñ sol léegi nag bu ko defee moment boobu noonu xale jigéen ñoom ci lañuy ñuy profité di nekk ci lu leen neex ñoom loolu ñoom ñoo ko war a bañal seen bopp ay góor bu la woowee fii ñëwal lii tegal dil bi bañal. ay loolu noonu boo bëggee dem di nga dem mais boo bëggul dem moom kenn mënu la yoobu loolu rek laa amoon lu ma ciy wax nañ téye seen boobu ngeen képp ko. solution. solution. man daal pour sama xalaat bu gàtt hmm? leen rek laa wax xale góor ñu bàyyi xale yu jigéen ñi seen kër ak seen kër baay ndax yéen boo leen toogee benn xale bu jigéen amul temps di waru benn góor. yaa ngi dégg ah. yéen boo leen toogee yéen boo leen toogee. Ah. Ah. am na may ma am na may ma bàyyi rek ma wax. yow may dégg yéen boo leen toogee seen kër yi jigéen du jugee kën ndeyam ak kër baayam di wëri benn góor ndax yéen yéenay woote yéenay yéenay uti appartement yéenay provoqué yaa may dégg deuxième bi mooy ah boo leen takkee jabar ba da ngeen ni bëgg a wéetoo du yaay du papa du mag du ndaw lan euh, wéetoo yéen ñaar ba nag ba oto bi yéen a koy jël balaa ngeen di takk. ngeen ngeen di lijjanti balaa ngeen takk ngeen di lijjanti. yaa may dégg kon kon yéen amoo leen dara loo leen di wax. xale jigéen moom xale jigéen yi leen laa leen wax ñun bañ a topp xale góor yi xaalis du dara cheveux du dara portable du dara man maa ngi ne yor naa téléphone mais man ko génnee comme si con concerné wu ma man lu ma maa ngi koy sante yàlla maa ngi liggéey def sama bopp ñaan ma benn xale bu góor tey naa sama bopp maa ngi sol lu gàtt maa ngi dem matinée maa ngi dem soirée maa maa ngi dem fu nekk mais dama téye sama bopp ñàkkul ma sama bopp benn xale bu góor mayam mayewu ma gratuitement sama bopp dama ko bëgg a téye ba bis ba mayam ma jëkk loolu loolu laay conseillé xale ma zil micro zil solution waaw man moom man moom man moom man moom sama solution lenn la déjà damay naan nit yaa war a yar sa bopp même sa yaay bu la yeree nit am na am na yow yaay yow yaay xool man lan laa bëgg sama avenir nii laa bëgg mu mel ma yaru deuxièmement jigéen waroo matérialiste dama seetlu de nos jours jigéen ne yaa matérialiste loolu noonu nga war a dindi tegee ko de côté parce que daf lay leer ne que boo deewee matériel looyoo cheveux maquillage lépp fi nga xëy bàyyi. fi lay des troisièmement troisièmement troisièmement troisièmement ngeen xam ne deru jigéen lu koy yàq dafa yomb ngeen moytu àndandoo yu bon yi ci man loolu loolu loolu loolu mooy solution yi quoi. alors léegi solution. waaw solution bi mooy. Euh, xale jigéen ñi ñu moytu surtout sama genre yi xam dañoo gëm iPhone ak cheveux loolu rek mën nañoo yóbbee pour ñu perte suñu ndaw surtout <laughs> non la soxla rek pour ñu téye suñu bopp bédé bi booy daal ñu moytul ma genre amet aka ñoo gaaw si tekki tubay merci rek pour seen cas <laughs> bon man déjà li mooy njëkk a wax mooy jigéen ñi nañ tàmm looy leen boo li gën a important mooy doylu parce que tey ji yaakaar naa li ñu yóbbee lii yëpp mooy ñàkk doylu parce que tey ji nii sa parent lu mu la jox war na la mën a doy sa yaay lu mu la jox war na la mën a doy kon tey ji góor ak lu mu la mënte wan wan wan da nga war def ndax sa xel dem man lu ñu ma jox doy na ma sëkk kon du dem si ñoom di wut ay iPhone ay cheveux wala dara góor yi tamit nañ am esprit de dépassement tey jigéen bu ñëwee ak ak boo xam mënin bu bon yow nga ñëw jëm ko cee changé nga jàppe ko sa raq su fekkee sa jabar lay dooni nga xoolee ko butu yërmande tamit jigéen ñi tamit nañ téye seen bopp parce que tamit comme ni Jules wax rek jigéen moom deram pour mu yàqu dafa yomb torop ñu wax ñëpp buñ comme li olof Ndiaye wax rek ñëpp buñ la tuflee bu yàggee nga tooy loolu moo fi am kon tey ji loolu laa am wax daal. joxal sama rapport bu mag bi Ibrahima. Ah, man de man waaw ah, sama solution ma xam la la sama xel bu gàtt tey ji góor yi kenn mënatu leen tere ñu am gel jigéen ñi tamit kenn mënatu leen tere ñu am far ku si am gel wala far. soo mënee nga dem présenté ko say parents ba ñu xam ko kon kooku du la sañ a dara mais su dee nag soo ko nee kañ dama présenté samay parents ñu bañ kon kooku nag moo xam ne ku xam ne bëggu la mais dafa am lu muy jos yow moom loolu laa ni conseil ku si am sa far wala gel nga présenté ko say parents su dee dëgg la. présenté say parents daal dina mucc dina la tax nga mucc ci. voilà baax na. waaw euh, man man au fait pour euh, pour tënk damay ne une fille. une fille doit savoir dire non à temps parce que dañu ne à la faut la faute elle est entièrement partagée xale yu jigéen yi dañ ci am par xale yu góor yi am ci par parents yi am ci par mais dafa am conseil rek bu may jox jigéen ñi parce que Sénégal même bu dee jigéen góor day nekk euh, puceau day nekk jànq jànku jigéen la ñuy lijjanti lijjanti wuñ jànku góor donc ngir yàlla. xale yu jigéen yi il faut savoir dire non à temps cest dire mën a wax déet ci bi déet di jot loolu benn la ñaareel bi fulla mooy jaay Dakar l'amour et le sexe c'est deux choses diamétralement opposées gis nga ki la bëgg ah xale yu jigéen yi ah vous m'excusez mais ki leen bëgg du leen wax waxu taat du leen wax waxu fo du leen laaj seen bopp xam ngeen lu tax day projeté mariage projeté ngeen am ay doom projeté seen avenir si on vous parle d'amour d'accord mais si on vous parle de sexe chache une chose que les garçons d'aujourd'hui en commençant par moi ne sont plus dangereux que le mot dangereux lui-même or les, il faut aussi se mettre dans la tête que les garçons sont des prédateurs toog leen seen kër yi jàngi leen wàcc bu jëkkër jotee ci yéen di ngeen ko def mais quant à farantu lijjanti gauche lijjanti droite jàpp ne vous êtes yéen na ngeen a muus xam ngeen lan la leen di indil toujours ay problème ay avortement ak yeneen ak yeneen ak yeneen donc pour terminer conseil bi ma leen di jox mooy mën a wax déet bi déet di jot parce que am na fi ngay toll di nga mën a bëgg a bëgg a wax déet fekk dootoo ko mën góor yi li ma leen di wax comme conseil mooy góor da ngay diñ ci sa bopp bokk na ci dignité booy def terminal nga fexe am bac bokk na ci dignité nga fexe ba yenn yu ñàkk fayda yi duñu la ci dugal mais bokk na ci dignité xale yu jigéen bu ñu toogee bëgg a yàq sa der am ku mën a jóg défendre la loolu nag mënul am ci jamono bu nekk nga bëgg a iri ay xale yu ndaw pour fair du n'importe quoi sachez que l'amour et le sexe sont deux choses diamétralement opposées jërëjëf merci beaucoup. alors ñoo ngi woon fii ci Parcelles Assainies unité cinq doon waxtaanee li nga xamante ni moom mooy virginité olof di ko wax ndaw ñi eh, ñi jot a déglu seen xalaat nee nañu faute bi dañ ko partagé ci parents yi ci xale yi donc dañ leen di jox rendez-vous beneen émission à qui la ngeen ci doon ànd ak Sista Soxna la fan série de saalum ba beneen yoon incha allah.